moom mooy bisu festival bi mu tudde ko suñu maam euh, Birama Sélé bi nga xam ni moo sancoon moo sosoon Njàmbur nekkoon premier jaraaf Njàmbur Birama Sélé ba surtout Birame Njéemé Kumba la euh, di doomi Masamba Waly Jëleen bi nga xam ne nii dafa jóge Jolof ñëw installé fii dëkk bi tudd Mbisis Euh, euh, Damel du Kayor Damel Tène du Kayor la Sukaabe Ngoone Dieye moo ko nommé woon en 1679 euh, Jaraaf Njàmbur mu falu fi vingt 22 ans at mu nekk nag mu ba fa jógee mu jox ko njabootam ay doomam yore ko di ko jox entre ñoom waa famille bi nga xam ne ni pendant plus de 400 ans. jusqu'en 1906 ci la ko jël jëbal ko euh, ay doomam ñaari doomam yoo xam ne ne dañoo demoon formation collège alawit bu euh, Tunis ànd fa ak Samba Yom Mbodj Salmon Fall euh, Sayer Matiba ak Baaxaan Diop ak Bouna Albouri Ndiaye bi ñu ñibbisee Euh, mu jël njàmbur dagg ko en deux njàmbur sa entraîneur njàmbur mer na yaraan jox ko ñaari doomam yu góor après mu jël ko jox ko son de confiance mu Samba Khary Cissé Samba Khary Cissé wéyale liggéey bu mu daan liggéey. at bi dafa sedd xol ndax euh, dafa famille Ndiaye dafa famille boo xam ne ni mu ngankoon njàmbur pendant plus de quatre cents ans te daanaka dañ ko suuloon euh, doo dégg ñu wax xu njàmbur bu tudd leen ci. ñoo xam ne ni ñoo. Euh, ngànkoon menn réew pendant plus de quatre cent ans kenn mun leen a suul euh, lii la Ngaari def dafay def ñuy dimbale dimbale génération yi ba nga xam ne taarixu dëkk bi kenn mënu koo tudd te mënuñ cee tudd ci famille bi. nag ñan lañ leen di ñaan euh, di ko sàkku mooy fa benn famille mënut a diriger benn benn benn gox lu mat quatre cent ans ba pare doo dégg ci dëkk bi ñu wax ba tudd leen doo dégg ci dëkk bi. ñu tëdd leen aw yoon wala ab ab bâtiment wala lenn loo xam ne day njëmmal ne lii moo lii moo ñii ñoo ŋànkoon réew mi loolu nag dañoo ñaan gouverneur ak maire bi euh, maire bi xam ne suñu mbokk la ñu euh, loolu ñu rattrapé ko. di leen wax ni euh, man xëy na xale laa sax Birama Sélé xaw ma ci lu bari waaye li ma li ma li ma jot a xam rek mooy ñun suñu waajur yi nga xam ne dañoo meññ. ñun dañ leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal nag li ma wax naan fos yëpp fos lan waaye kuy buut fas naaru góor ngay wër kon dañuy jàpp ni ñun dañuy sant suñu ñaari waajur ñi nga xam ne ñoo ñu mel ni ñun ñuy ku nekk ñun ñi nekk bi daa sele ñun xam na ni yàlla defal xamal nañ ko ndax jàpp nañ ni am nañ cër boo xam ne si du sunu doole waaye xëy na démb la woon kon dañuy sant suñuy waajur yi nga xam ne tey ñoo tax lii ñu nekk ñu nekk ko kon ne xam na ne man sama papa moo nekkoon président communal bu Kell Gueye sañ Babacar Sarr xam na li may wax moom la fi yàlla tegoon sunu maam yi nag dañ leen a séddale woon am na ñu nekkoon Wélingara am na ñu nekkoon Kokki am na ñu nekkoon euh, Paalinung Babuk am na ñu nekkoon Sancib Jaraaf Amen Ndiaye Jaraaf moo nekkoon Wélingara comme ni nga ko waxee papa yi ñoom Sele ak général may Sele ñoo nekkoon Kokki man sama maam Sele may sa numbe wala Sele Sele may sa fari moo jur kii toog di bàyyi may si ci délégation bi moo nekkoon chef de canton Ndiobéne Ngounte moom mu jaxare ci njàmbur kon sant nañ ñi fi nekk ñëpp di leen wax ñi li ngeen defal rëy na ñu ngi sant ngaari mbay bu baax di ko xamal ni lii mu def sant nañ ko ci bu baax ndax it nag li ko Aziz waxee rek maanaam suul ker du ko taxee feeñ coow li bari na lool waaye bu pënd bu wuree dana xam kan la